ñu mu def nag saa bu ñu toll rek bu ñu waxee ñu ne ana sëriñ si sëriñ si dem na ci sax ba tey jii yow boo xëyoon suba ñu ne créé nga parti ñu ne gisal sëriñ sa ñu ngay wuti parti nag ñoom ñëpp ay politiciens ñoom ñëpp nag politique rek nangam nangam nangam nangam te bu réew mi lëndamee ñu ne ana sëriñ si duñ ci wax duñ ci lële dañ leen a ger dañ leen a jënd man de li ma gis muy guddi muy bëccëg sëriñ si noppali wuñu te it nag réew mi nañu xam ne liggéey bii fi sëriñ si di liggéey liggéeyu diplomatie la diplomatie discrétion la du ñu dox guddi di dox bëccëg di dox li ñu dox waxtu wu ne ñu ngi dem ak dikk ñi ngi lijjanti li ñu lijjanti di ko xeex xeexub suuf di taxaw taxawaay bu am solo ndax bërki démb ku géej président de la république fii mu ne wax sëriñ bi gis naa importance bi ngeen am ci réew mi kon tooguñu fii rek bàyyi leen ak réew mi noonu dénkaat confiance réew mi ndax xam ne ni ñii ñoo yor réew mi ñii ñoo téye réew mi mu feddaliwaat loolu kon moom ay mbaggam ñaare bu diisee mu metti bari na lu bari sax lu mu bëgg a te mënu koo matt te kilifa diine yee tax kon ñi ci réseaux sociaux yi di coo guddi di coow bëccëg te xamuñu ci li ñuy wax dara la ñuy wax dañuy tolloo niveau bi ñuy wax rek nañ yem foofu waaye nañ xam ne discrétion du luy nekk ban public ak koñ ba di wax waaw ndax munoo dem ca président boo ñëwee xëy suba jataay boo toog toogee ko fa lii la ñu wax lii lañu nas lii lële sëriñ si ay diplomate parallèle lañu diplomatie parallèle fii wax naa leen ko ci gàmmu nee naa leen ceinture de feu moo wër Sénégal waaye fii bari waat na ndax bari waat na nag fii ba ngay àgg nag Niger gële ak loolu ñu ci bari seen i kurus ak la fii la ñuy siyaar fii la ñuy yaakaar ku ci ne am na koo yaakaar ci réew yi wër fii te li nga yaakaar ngi biir Sénégal kon fii ñun bari na lu ñu man loo xam ne day dem sax ci yeneen réew diplomatie boobu nag sëriñ si di liggéey guddi ànd ko xam-xam xam li ñuy defit àndut ak wax discrétion la loolu ñuy liggéey duñ ci mës a def benn révélation kenn du wax nag bañ tontu la lu wax ñaaw ñaaw duñ tontu ngir loolu xam nañ tollu tolluwaay bi ñu am di ko liggéey ci réew mi te fas yéene koo liggéey dañuy def loola rek mu jëm ci jaami yàlla yi waaye sëriñ si nopp lu nu guddi nopp lu nu bëccëg koo ci gis lekkul ba suur koo ci gis amul amul sax ci àddina jàmm ju toll ne yow mën ngaa nekk ak sa njaboot ñetti fan yu tegaloo sax ngir yàlla ak askan wi ngir yàlla ak jaami yàlla yi teg sa bopp ci jaamu yàlla ci jaam ñi rek loolu ñoom ñu tegoo ko guddi tegoo ko bëccëg kon defe naa ne ñenn ñiy wax tamit yi ñuy wax yépp jëmee ko ci diplomatie discrétion la bu ñu demee nag ba bëgg a jël loola di ko tas nag di ko saayiral kooku jaratu ko ndax du ñu jug di wax lenn ah bu fekkee nag ne ñoom ñaare li lu bari lu ñuy faral di ko wax di ko teg sëriñ si te sëriñ si it yor gi ñu yor réew mi di ko doxal di ko liggéey te soxlawuñ ci ndax kenn ci ñoom amul salaire état kenn ci ñoom amul fonction boo xam ne sax réew mi jox na la ko kenn ci ñoom ñoo xam ne ñoo ñi nga xam ne gis naa leen ñaare bu réew mi tàngee amatul jàmm amatul bëccëg lu ci mag mag lu mu ci doon doon ñee nga yor seen i kaan di woote di yónni di dem ak dikk di waxlu di deflu ñoom ñooñu ñëpp gisuma ci koo xam ne daray état dugg na ci yow koo ci gis la mu yor yëfi boppam la wala njaboot bu baax taalibe boo am boo xam ne moo la yéene ne la jëlal lii nga koy doxe di ko demee jumaa jekk dikk amut ci ku ci yor voiture de fonction tey ñu yor voiture de fonction yi ñoo dëkk ci saaga réew mi kon day laaj nag bu réew tolloo foofu bu ko defee ñaari boor yëpp muy opposition bi muy pouvoir bi li ñu war a def nag mooy daje bokk toog waxtaan nu seet loola kon nag bu fekkee nañ sëriñ si it seen mbir tamit ca kanam nañ leen wutal benn conseil religieux conseil des guides religieux boo xam ne léegi bu boobaa danañ wax ñëpp di dégg dañ ko wut dañ wut conseil boobu te te te seen biir ñoom ñoom ñooñee ñëpp nga daj tarix yëpp a ca ne ñëpp a ca ne ñoom ñëpp a ca nekk di ci góorgóorlu di ci góorgóorlu guddeeg bëccëg di ca sonn kon defe naa ne ñi ngi lijjanti sax di lijjanti ñoo xam